asalaamaaleykum waaw population fayou ma ngi len di ziar bu baax di len nuyu délégué de quartier nak mo waron jëk wax dalal suñu gan gi monsieur le maire mais dama ko ñaan wax ko man mi nekkoon nak euh, maire maître sax la koy wax man <laughs> ndax ma sha allah ku ne xamni monsieur le maire mom euh liggéeyam ci Thiès moko war waaye moom dafa commencé wul foofu dañoo nekk di liggéey 5 ans mu nekk conseiller ma nekk conseillère mairie mu jàpp di jàppale képp ku am euh, problème ca tribunal ba boo jaaree ci moom di macha allah doo fa taxaw doo fa taxawaalu da lay won yoon wi nga jaar yëpp ñu bokk nag 5 ans di liggéey mairie mu jàppale le maire Pape Bassirou Diop di ànd ak ñun di liggéey liggéey bu rafet liggéey bu mucc ayib waaw fonk conseiller yi ak conseillères yëpp jubóog ñëpp macha allah defe naa ne loolu moo ko may pastam bi ndax nit ñi tam dañuy xool sa jikko ak sa qualité te kaay ñu jox la yow yaa ko mérité moo dàq te moom lañ ko defal moo tax mu nekk maire Thiès Est muy ko baax nag ko oyof ndax lii démb rek keroog laa ko ko wax démb rek mun na ma def ma vocal ma yeewu def ko vocal mu bàyyi activité am yëpp conseil yi bu nekk xam nañu bu amee maire waroo génn parce que moo koy présider mais dafa bàyyi yëpp ñëw teew ci consultation bi benen bu moy ah ñuy sant nak sofi mi mom tam and ak jaxer ak euh, Margot man mi conseiller municipal la won waye legui dama xawa baye politique liggeyal gox bi nek badjon gox wax deug yalla consultation bi biñ ko defé une semaine yagul lañ ko préparer waye ci suba ba legui femme yaa ngi ñëw paa yaa maire dépistage bi mom xam nga dafa am solo surtout troisième âge ndax dañuy toog rek surtout ñu sant Diop di naan attaaya trois fois quatre fois par jour duñu xam seen suukar duñu xam dara te loolu kon njariñ la beneen bi mooy jigéen ñi jigéen ñi affaire cancer de col dafa bëri te ñu bëri dañuy toog seen kër yi duñ ko xam te vraiment salle baa ngi ni sage femme yaa ngi ni ci suba ba léegi ci lañ ne xamuñu sax ndax danañ pare nee nañ bu jeexul ñu jàppal ñu beneen bis loolu moom baax na ci population bi ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp may bàyyi foofu nag ñi des mbàyyi ko délégué de quartier jërëjëf Euh, di am mbégte nak di wax ak yenti ci euh, li nga xamni mom mo moo fi ci koñ bi monsieur le maire dafa am euh, surtout événement bo xamni mom lañu la fan yi ci koñ bi lo xamni euh ñun niñ ko mëna a tudde rek moy les journées de fayu parce que def na lu wara mat une semaine ñu tambalé ci bénn formation bo xamné bénn ONG bu tuddu Fayda moom moo ko défal formation bo xamné euh dafa am solo ci xalé yi ci mag ni ci jigéen ci ñëpp loolu lañu jëkke formation bi duré na pendant trois jours mi ngi nekkoon ci euh, affaire socio économique vraiment xalé yi gis nañ ci seen bopp bu baaxa baaxa baaxa baax ba nu jógee loolu ñu organiser set setal set setal bi bo démé buntu lycée actuellement légui kay lañuy wax moy nda euh, ndox ya fay ta ak mbedd ak yoyu mais lu herbe gisatoo ko fa biir lycée bi ci euh defar nañ ko lycée ci euh donc euh, set setal nañ ko koñ bi jàkka yépp set setal nañ ko ba ñu joggé ci loolu ñu def don de sang don de sang bi démb lañ ko def bi nga ki nga xamni moko moo ko doon piloté ba muy ñibi li la wax nous vous remercions bien la chasse a été bonne ce qui veut dire que am nañu ay poche yu bari après loolu tay ñu def consultation gratuite bo xamné euh, dañuy cette tension le euh, diabète le cancer du col de l'utérus loolu tamit ko population en masse donc loolu mon xam linga li nga xam ni dafa andon tamit ak sport volleyball football ak mais malheureusement ci ci la suñu ku tedd ki làqu ñu daal di ne activité yëpp loolu mooy monsieur le maire li nga xam ni moom moo amoon ci koñ bi mu nekk suite d'événement boo xam ne daal ñun nañ ko mën a tuddee daal mooy les journées de fayu ca incha allah bëgg nañu euh, pérenniser ko déwén ñu defaat ko waaw léegi nag loolu li ñu ko may mooy danoo am gan gu bees gu ñëw ci koñ bi muy madame Diouf madame Diouf dafa euh, organiser affaire bi fa mu dëkkoon à Dakar pendant des années plus de 10 ans mu koy organiser foofu da daan rassembler plus de 2000 jeunes loolu la bëgg a indi fii ci koñ bi bu mu ñëwee wax ma ko ñu waxtaan ci ça fait plus d'un an euh, boobu temps ci temps wu Covid bi la ñu ciy waxtaan di ko kii di ci waxtaan di ci waxtaan. ba tey yàlla def ñu ñu def kon boog nañ bu ñu fekkee ne euh, ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax ci loolu nga xam ne moom la moom la moom la ñu indil fii bu mu ñëwee nag daf fi fekk tamit ay famille yu takku takk seen liggéey takk seen ndigg di liggéeyal pour gox bi parce que dafa dafa am ñoo xam ni fayu rek moom moo leen ñor dañuy liggéey pour sa quartier loolu mën na ci citer sama sœur Diakher Faye ak euh, euh, magen Ndiaye magen Ndiaye mom kenn mun ko fay je n'ai jamais vu une femme aussi engagée ca noonu le sincère noonu la jube vraiment ñi ngi lay remercier bu baax a baax madame Niang kii mooy euh, la sage-femme madame Oudiane bo xamni ñepp xam nañ ko ci koñ bi parce que mom mo nekkoon ci. Euh, euh, poste de santé bu Mbour 2 bi def fa liggéey bu takkoo takkoo takku keroog bu muy dem euh, po biñ ko defal foofu ñëpp la seen yaram daw ndax témoignage lañ fa defoon mu nekk sama voisine nekk ku baax moom tamit loolu daal monsieur le mooy mooy li nga xam ne moom moo fi moom moo fi xewoon léegi nag kontaan nañu lool bi nga xamee ni ñëw nga fii temps bi nga xam ne ñoo ngi def clôture parce que tey bii moom mooy le dernier act des des euh, des événements kontaan nañu lool lool lool lool waaye nag li ñuy wax rek euh, saxaar lu mu fees fees puso xaj na ci waaw <laughs> moo tax xam nga gis nga yoon bi bi ngay ñëw yoon bi kon dootuma la ko waxati yoon bi gis nga ni muy mel bëgg nañu ku ñu dimbalee ci yoon bi ñu defar ko lu ñu soxla mooy. ñu indi ay seuk bu doy mais ñu indi niveleuse parce qu'on a besoin d'une niveleuse bo xamni mom moy racler affaire bi yoon bi tolloo loolu dal boo ci dimbalon baxna trop lenen li ma lay fàttali tamit moy ci ginnaaw fii euh, mooy euh, extension ou ex demande euh, d'extension bima la waxone euh, concernant les poteaux électriques ci ginaaw ni yépp kër yi dañ la dañ leen électrifier d'une maison à une autre non la des filles. de telle sorte que des am baisse de tension et puis des indi ay incommodités yu baré baré baré baré l'ol tamit n'y nañu ngeen le ñu ci waaw lol daal mooy li ñoo xam ne doon avant l'ol nag de may bàyyi nag dinaa la présenter qui nga xam c'est le carburateur du quartier moi barjo qui moi moi mooy li nga bu amul woon ci quartier bi dama naan boo fi nekkul woon dañ lay <laughs> il faut ñu wëri la <laughs> moy balé jàkka ci ki ni hein ah? moy balé jàkka ci c'est un ancien policier professeur de maths yu bari fi mo leen mën dafa def droit il a été à l'université bi mi nek ka Abdou Diassé bobu man maa ngi woon foofu ba da daan joggé fofu di dem di jangi di euh ci université di def droit soo ko gisee avec sa modestie la da ngay defee ni xamul dara plume am policier yëpp a ko doon moytu bu bindee kii nga gis ni mu ñëw mooy bale jàkk ji laa la wax mooy nodd ak suñu dëkkandoo yu baax yi yëpp maa ngi leen di nuyu bàjjenu gox man nag damay wax rek monsieur le maire it ñu ngi koy sargal di ko di ko wax dalal jàmm di ko wax rek sama maam nee woon na Masamba sonn Birama njëriñ Masamba tàyyi Birama réccu koñ bi nag lépp ñëpp lu nekku ku nga ca du dëgg li ma ciy wax du bari ñun daal ñu ngi fi rek jàppal ma jàpp bu neexee yàlla euh, lii madame Diouf di def ñun bëggoon nañ ko lool dox nañ ko lu sori lu bari mais nag moom comme yàlla def na muy profu éducation physique ñëw fii ah ñëw ci ay yëngu-yëngoom ah ñu ànd ak moom di liggéey ñun tam dañ ciy dañ ciy fier daal di ko ci sant waaw loolu la ñu amoon lu ñuy wax ah di leen sant yooyu nit seen télévision bi ca kaw ca kanam rek yàlla dolli leen sutura may leen gudd fan ak wér merci beaucoup. maa ngi nuyu ñëpp di maa ngi nuyu ñëpp di remercier ñëpp ñi nga xam ne teg na def nañ seen loxo ci li nga xam ne mooy organisation bi xam nga bi may ñëw si quartier bi fekk naa fi déjà nit ñi. ku ci nekk yaa ngay am say projet man def c'est sûr que am na ñoo xam ne xalaatoon il est vrai que ñun avons am un plus par rapport aux autres c'est que jot nañ am 15 ans d'expérience à Dakar à Liberté 6 yàgg nañ ko def te bi ñu ko indee fii itam population bi dañuy adhéré loolu vraiment mënuma leen ci fay parce que lépp la ñu yombalal déjà jeunes qui fille ou c'est nous fii Ousseynou te fekk na waxtaan naa ci ba à ak suñu délégué de quartier loolu moi moo yombalal le parce que moi n'est que très d'union entre association bi ak mairie Thiès Est parce que d'autres nañ fa dem ça mais gis délégué de quartier euh, comment il s'appelle le secrétaire municipal nous n'avons pas eu la chance de rencontrer monsieur le maire euh, à l'époque

Les santé reproduction le euh, cabinet médical bu Major Touré depuis première organisation bi ñi def lepp liñ ko proposé mu partant n'ako, diriger euh, dépistage bi euh, tension ak diabète té mu ngi les consultation générale li nga mais bolé

actuellement bande de l'été yëpp moom moo jël en charge ba paré jox ñu matériel bi mi défé ki bi xam nga sax nu mu tudd attends testeur wa mu mu mettre ko à notre disposition booba tey moo koy joxe le maire de la ville de Thiès. Mhm. man xawmako mais par des relations ak euh, en passant par euh, madame sec il se moom ñu abal matériel lourd bi pour ñu mëna def désherbage bi ak yenn euh, mënuñu nivelé yépp mais am na parti yoo xam ne jéem nañ ko wàccee tuuti ndax oto yi mën a jàll booru jàkk ji am na fu ñu laal am na fu des lépp am na yoo xam ne daal laal nañ ci mais des na ba léegi parce que temps bi dafa gàttoon c'était un vendredi yéen seen participation ñu ngi koy dégg mairie Thiès Est de loin parce que euh, délégué moom mooy nekk tampon bi toujours entre ñun ak ñoom moo tax xeebuñu participation kenn yow mënuñu la remercier parce que mënuñu la remercier assez parce que sol nga sé dal bay say activité ñu fi vraiment ñi la ñi la ci gërëm di la ñaanal bu baax euh, Maguette madame man bagian rek la regla rek la koy ooye Maguette ndjay la tuddu wa tay dem bëggoon maget dina madame mais Maguette rek bàjjen la koy wax mom vraiment ñëpp lañuy remercier monsieur euh, Diop nak mom mom moy spécialiste Résumé, les lépp parce qu'il y a un programme formation un programme santé un reboisement un programme sport sport il y a un euh, un moniteur de fitness il xamné indi formation bi dafa continuer après pour que les gens puissent faire régulièrement du sport pour leur santé xam nga ñep xam nañ ni sport dina wañu au moins frais médicaux parce que dina améliorer santé loolu dinañ ko def te xale yi bu nañ commencé chaque week-end ñi def volleyball activité sportive bon programme santé comme ni ko délégué wax bëgg nañ di lépp mais sur le plan de de l'insertion de la contribution à l'insertion sociale liñ ci bëgg a def ñun xam naa ni y a des réactions positives pour le moment mooy que am na ñoo ils ont leur spécial leur qualification wala leur spécialité par exemple il y a quelqu'un qui devait aider les autres pour ñu faire ay bancs bancs publics à partir de ay pneus ay matériels en matière de récupération dinañ ko programmer on n'a pas eu le temps de le faire mais dinañ ko programmer képp ki ko bëgg a def faire. nit ñi jàngal leen comme ça ñu continuer euh, da gis nañ fi tam repéré nañ ñoo xam ne koo xam ne mën na defar tamaate lokati am na ko mën a defar saabu ko de manière périodique day bëgg di organiser bu kenn ñi nga xam ñoo bëgg participer dañuy jënd matière d'œuvre bi buñ ko jëndee ñu jàngal leen après ñi dem commencer déjà activité bu leen neexee consommer bu leen neexee jaay mais au moins danañ mën réaliser celle li ñu bëgg a def en attendant xaw ma ndax wax naa. je je pense que j'ai été un peu longue et j'ai dit je pense avoir dit l'essentiel. voilà maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. Euh, salaamaaleykum. maa ngi.

Cette activité, a démarré depuis trois jours mais il y a mais des contraintes de temps Il y a un programme qui dañ ko établi bu yàgg nous, tax ñu ñu mais on tenait court que euh, à venir vous féliciter mais surtout vous encourager Je suis tey conseil municipal ville de femme mais dama ni maire il faut ma dem fayu parce que euh, jigéen ñi dañu fa jël initiative c'est une initiative à encourager et une présence qui beaucoup ci les je crois que la population fay ñom xam nañ euh, cette nouvelle démarche inclusive bi nga xamante bi nii dafa wara tax population yi ñuy intéressé euh, ce qui se fait autour d'elle parce que euh, de nga dem ci gox yo les populations dañuy ils attendent tout des collectivités. Or, les, populations, les collectivités travaillent pour les populations. Donc, les populations, nous devons anticiper, des euh, décisions. Donc, cette démarche citoyenne, patriotique, participative, nous devons saluer. Euh, la commune de Thiès sera à vos côtés. je crois que si nous élirons les Fayou beaucoup dans les quartiers, il faut des déplacements. Je crois qu'on est venu à nombreuses reprises du du Maïnek Fayou et pour l'occasion occasion échanger la euh, population par rapport aux préoccupations de Fayou et je crois que lors dynamique la et malgré les ressources qui ne sont pas illimitées parce que euh, nos communes l'État nous a transféré beaucoup de compétences mais sans nous a transféré les ressources qu'il faut pour pouvoir être auprès des populations pour satisfaire toutes leurs doléances donc parce que euh, je l'ai dit et le délégué l'a répété tantôt FAYOU Fayou, le quartier résidentiel par excellence de la commune de Thiassès. mais les infrastructures de base qu'il faut ñëwuñu parce que FAYOU, pour pour tali c'est le seul quartier un quartier résidentiel une route goudronnée ça c'est inacceptable donc fanny, nous avons discuté avec euh, gouverneur par rapport au programme Promoville et je crois qu'il y a quelque chose qui est prévu pour Fayou nous dès notre arrivée aussi nous avions écrit à l'Ageroute aussi bien qu'à l'AGETIP par rapport à certains abonnés qui sont au niveau de Fayou pour que nous xool nan lañ fay ça permet de désenclaver complètement le quartier par rapport aux populations aux, jeunes aussi je dañuy remercier l'initiative de Mme Diouf parce que je crois que gox aussi si Ké, am ay parce que l'essentiel est de faire de sorte que le cadre de vie soit amélioré et de ce point de vue là nous allons vous accompagner Inch'Allah, la commune de Thiès sera à votre côté parce qu'en définitive on est là pour vous ce sont les populations qui nous ont élus pour que nous liggéeyal donc li que nous la population yi bëgg ñun ci que nous ñu bëgg a sax li par rapport que euh, le lycée dégg nañ et lundi on prendra les dispositions nécessaires avant que élèves yi pour nous xool ñu niveler yenn tali yi euh, moi je l'ai appris à mes dépens parce que tout à l'heure en venant j'ai eu d'énormes difficultés à accéder sur le site et je crois que la population est fi que nous, tous les jours lañ donc nous avons gërëm ñëpp di sant le major hein, major Touré bi qui a mis sa clinique à la disposition des populations euh, le pharmacien comme madame Diouf l'a dit képp koo xam ni rek dugal nga sa loxo ci mbir ba mu nekk réussite nekk satisfaction pour les populations ñu ngi lay gërëm di la sant parce que la santé est une compétence euh, transférée donc ñun ñoo ko war a def lépp lu jëm ci wàllu santé donc su amee ñu jël ay initiative jiituñu ci ci wetu population yi ñun lañ ko defal donc nous ne pouvons que les remercier et les féliciter donc euh, soxna yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen gërëm di leen sant di ñaan yalla la prochaine fois euh, xeyna ñu euh, su amul ay couac comme ni mu amé won bi passé nga xamanteni yi ay événement malheureux mo ñëw tax ba xeyna niñ ko doon bëggee euh, demeewul noonu mais ku ne gis na ni niñ ko waxé réussite bu mag amna ci parce que population yi ñëw nañ massivement ci opération set setal yi opération dépistage et tout donc ñu gën ko préparer année prochaine bu ko défé maire bi aussi gën ci duggal loxom parce que comme je l'ai dit au risque de me répéter li ngeen di def mom ñun ngeen koy defal euh, ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier aussi de passage Wa Prestige TV de mon ami Pape Doumbia parce que sen taxaway moy tax population yi di xam euh, li xew euh, information yi bi di mëna jall ci nit ñi donc ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant taxaway wa waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah. man maa ngi tudd Mbar Diop dëkk fii ci quartier Fayou. Nous avons ni bokk naa ci notable yi mu que euh, journée tey bi dafa euh, presque journée clôture activité yoo xam yu fi la ni euh, une semaine dafa association bu ñuy wax Fayda ah amoon seen benn jigéen bu ñuy madame Diouf Aïssa Dramé sargal ah, sargal booba nag moo jur activité yi nekk yi fi xew yëpp parce que nit ku nekk ci li ngay yëngatu rek ah ci ngay mën a defee njukkal il se trouve que waa Fayda muy euh, Gérard Sambou ak euh, Maïssa Gay ndoy spécialiste ci formation ñoom ñoo ñëwoon di sargal si Aïcha ñu ni nag comme ñoom dañoo yàgg a ay xale et yàgg dimbali aussi askan wi ci wàllu lu ñuy gérer seen koom a ah, module yu mel noonu la ñu indiloon pendant trois jours ñu defal ci formation suñ ko tënkee ci formation bi nit ki bi nga ñëwee ci ni mu toll ci nga koy fekk reconnaître ci personnalité and ak mom ci lolu fa ngeen bëgg dem ngeen dem fa non lañu doxale ñun bi ñu ñëwee nañu xalé yi ni que li tax nit ki mën avancer moy da ngay gëm sa bop do nangoo nek mukk ni comme liñ naan nulaar xawma dara ignorant dedet nit ki fu mu toll il a un naki amna lu nek lu nek ci mom loolu nak da koy gëm nak di wut leneen lu ci yok bu amé na ku ñëw ni tay lii nga nekk dama la koy dama la koy yokkal nga am am am am ak déglu nag ak ak xool ba nga xamante ni di nga fa jëlee dara ci kaw loolu bi ñu ñëwee ñoom yee nañu jeunes yi ci li nga xamante ni que moo leen war mais li nga xamantam aussi mooy seen yelliteef li nga xamante ni ñoom ñoom dañ ko dañ dañ ko warloo jeunes yi kon mu nekk diggante droit et et devoir loolu leeralal nañ ko xale yi euh, euh, mieux jàngal nañu sax ci biir euh, ci le droit ñaari principe parce que da nga droit à war am mais j'ai droit de war def kon ci droit dafa am loo xam yow mais am na loo xam day ci yow dem dem dem dem bi ñu jógee ci loolu ci ci loolu leeral ko xale yi xamal lañ leen ni kat nit ki ak ci lu manti doon la muy liggéeyee doonte lee salaire la mu nekk ci benn service ñu ko ciy fay liggéeyam warut a foofu parce que fa mu liggéey ba muy liggéey si c'est dans le cadre social ay nit la koy seqal koñ bi mu dëkk ay nit la fa la ko seqal kon répercussion la muy liggéey war na mën a feeñ ci xol ci koñ bi ci moom bu ñëwee la mu la mu taxawee fële mu tax mu mu mën koo taxawee ci ci ci ci koñ bi. nekkul ni rek sax ni da ngay da ngay jëf nii mais woo xale sax yedd ko ni ko boo jaaral lii boo doxalee nii sa sa vie di nga réussir kooku sax contribution la ci ci koñ bi te ku ci nekk am na expérience boo jaar kon boo jaaree ci expérience war nga am loo mën a xam ni mën nga koo def ci xale yi. bi ñu jógee ci ci module boobu. dugg nañu ci euh, modol modilu euh, sàkku koom xam ni que nit ki fu mu mënta toll su gëmee boppam rek mën naa am lu mu mën a entreprendre mais nag entreprendre mi ngi dépendre ci yow su bopp nga am loo bëgg la première chose c'est la vol c'est la c'est le besoin de vouloir da ngay bëgg soo soo bëggee nag nga xool nag nga def euh, nga def nag examen ci li nga bëgg li ma bëgg lan moo ci sama fort lan moo ci sama faiblesse li ci sama fort lan mooy sama fort euh, personnel euh, lan mooy euh, sama force boo xam ne aussi feneen la koy jëlee lan mooy sama faiblesse interne lan mooy sama faiblesse externe yooyu yëpp boo ko déterminer yow ci sa bopp li nga xam ne mi ngi ci yow di ko commencer mettre en en en en en exercice li nga linga nga xam fi koy

li nga xamante ne munta ñàkk nga def ko li ci des ëllëg nga sedd ëllëg parce que li naan période de vache maigre mën na dal ku nekk kon bu fekkee ne nag période de vache grasse bi nga ca nekkee xamoon nga ni vache maigre euh, maigre mën na ñëw nga nga prévoir kon bu boobaa di nga di nga mën a euh, surpasser euh, situation boobu mais nag ñu ne la loolu moom la ñuy tuddee wàllu yaxanal ñu koy wax épargne mu ne nag warul conduire nit ki nag ba nga xamante ni dafay àgg ci li ñu naan avare mooy nay waru cee àgg parce que loolu la koy indi mooy boo fekkee daawuloo denc daawuloo am dans dans un premier temps ba caa ngay am li nga doon am nga ni maa ngi denc denc bi boo ko xoolee mu xaw a consistant tuuti rek da ngay sa xel day daan li naan l'appétit vient en mangeant da ngay daal di bëgg ni kon man naa gën naa naa gën a gën a yaxanal ba mu àgg ci nga am farata boo war a def nga di ko nga di ko sëgg rien que pour pour pour denc non non non loolu loolu taxul taxul taxul ñuy jóg da ngay denc ci nga li nga xamante ni euh, que surplus la bi nga xamee ni def nga li la li la li la war ba war ba pare. bon ci bi ñu jógee ci loolu aussi xamal nañu ne que loolu lépp tam bu amee na nga xam yow tu as fait tout cela passage yooyu passé yëpp yaa ngi ko def dans un cadre euh, environnemental ci environnement nga nga nekkoon. kon environnement donc, on ko a environnement yomb ni nga de sa yaram rek ko environnement bi sa yaram set nga ci environnement bi set nga ci bëgg ak ci programme bi tam journée set journée reboisement mais comme ay jeunes lañ ko lañ ko te ku ni jeune ni amone activité sport sportive yu bari yo xamante ni programmé woon nañ ko pour pour def ko mais jour biñ ko programmé mo tassé tey ñu am dëj bu mag bobu ci biir Thiès mo taxone yoy ñu sursoir ko. ci bokkoon na ci programme bi nga xamanteni ne aussi soxna Aïssa ak ñim ko sékkal euh, ki nañ ko mo doon le euh, euh, problème santé. parce que tam nit ki tam loy mënti yëngu da ngay fekk nga am ak ak wér moo tax ñu organiser journée aussi yo xamanteni consultation gratuite lañ gratuite mais aussi amna aussi précédé par une journée dans le sang la kon boko xolé activité yi ci buñ ko ma euh, étalé mu que euh, mais comme vous dañuy wax ni gis mu am jigéen ju baax moo nekk ci ginnaawam mais fii ndam damay wax ni jigéen joo gis mu am lu mu mën a taxawee ba ñu mën koo gis dafa am góor gu baax gu nekk ci kanamam kon soxna Aïssa buñ ko santee aussi danañu sant jëkkëram parce que amoon na euh, xel ak euh, euh, xalaat

parce que nit ki doni rek man réew mi ma nek wala société bi ma nek lan la ma société bi defal da nga nan man ci sama bopp lan la jariñ société bi soxna Aïssa wane na limu mu jariñ société bi euh, euh, depuis ci njalbeen euh, à Dakar ba bi mu ñëwé fi Thiès kon exemple la pour xalé yi yépp man ci jël exemple man man ko suivre yàlla na yalla dimbali xalé yi ba gis-gis boobu ñoom ñëpp ñu am ci gis-gis bu leer yàlla yombal leen leen ñu ñu jaar ci ba réussite bi nga xamee ni soxna si def na ko doom yi ci koñ bee tam euh, dem ba mën a def loolu mais yemul foofu ñoom ni ñu jóge woon ñëw di leen defal formation pour ndaw yi mën a tekki ëllëg ñoom si ëllëg ñooy taxaw di defal ay ndaw formation asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Alaaji Ibrahima Khoreja Touré mais.

ma retraité 2000 bi ma retraité 2000 après mu ubbi cabinet bi mu ubbee cabinet yàlla def muy dox ba léegi amul leneen lu ma si def di faj maintenant xëy na sax def naa erreur tuuti sur le fait que les madame Diouf nous mu tudd xaw madame Diouf Sophie nous fii ne ma day def pour consultation gratuite bon ça fait partie de nos rôles hein, yoo xam ne ñun sax war nañ ko mun def mais nag si euh, xëy na bon taxawul noonu tellement mom elle a pris l'initiative mu ñeu def ko donc ñu ko ci sant diko vraiment il a été assidu ah hein, euh, jigéen boo xam ni vraiment elle bat son plein hein def ci lu nekk donc dañ ko ci sant diko gërëm parce que li yépp c'est grâce à elle donc ñu koy def c'est toujours dans le cadre social ah, vraiment on la remercie beaucoup surtout avec euh, euh, sama dalukaay muy jaxer je dafa nekk euh, côté double tranchant à moi parce que moi ak sama soxna benn lañu ñuy Je euh, sama ma ñëw aussi ci koñ bi ma ma xam fi à grâce à elle donc elle est géniale je la remercie beaucoup donc oui, tout me tout ça c'est grâce à Diakher je la remercie beaucoup concernant maintenant la consultation nous sommes dans un cadre social c'est un peu dur Maintenant, quand on le fait euh, dans le cadre gratuit mais nga ah, parce que nous dañu bëgg voilà nous manqué ah, nous, ñun tam dinañ ci def suñu kéemtalaay yu kàttan parce que vraiment ci koñ bi lañ bokk dalal nañu defal nañu lu nekk donc su nit ñi ñëwee ah, li ñu gën a mën rek dinañ ko ci def mais consultation bi vraiment ça a réussi ah, à 80 pour cent donc euh, on on se félicite nous-mêmes ak di féliciter waa koñ bi parce que koñ bi dañu baax ay nit ñu am aajo ah nit ñu mën a xam ne teral doomu aadama ñoo fi nekk. Donc tout le monde est là. Le maire est venu, je crois, avec qui fait je ne connais pas. Ousmane Diagne, mais vraiment, c'est ici. Oui, nous sommes fait hier. Nous ah, sommes Mansour, nous on fait. Délégué aussi à mosquée, nous on Mais vraiment, euh, c'est formidable. Ah. Euh, en tout cas, le programme a été positif ah, au point de vue consultation. la consultation. merci beaucoup Merci.